programme bi nga xam ne bu ñu jëlee mairie bi moom lañ fas yéene teg fii euh, bu ñuy wax programme nag ñun balaa ñuy tàmbali danañ wax ci réforme administration municipale bi parce que ñëpp xam nañ ne mairie ni muy doxee danaka recette euh, euh, budget bi yëpp ci fonctionnement lay dem le tout la ñu def ci investissement donc tay liñu ñu moy bala balaa wax ci programme bi euh yéene wax ci réforme administrative boobu nga xamné donc euh, wax ci réforme administrative bi nga xamné tay liñu li moy moderniser administration municipale ndax xamnañ na charge de fonctionnement yi la muy yóbbu bu ñu seetoon ay jéego ut ay jéego dinañ mën a wàññi bu baax fonctionnement bi donc xalaatoon nañ tamit joxe ay services de qualité Lolo, taxoon ñu xalaat tey comme nouvelle technologie de l'information et de la communication ñu ngi fi ñu mën a utiliser internet machine yooyu pour mën a def li nga xam ne la tubaab di wax digitalisation digitalisation mooy sàkk euh, jëfandikoo ci machine yooyu pour que bu ñu bëggee def par exemple ay kayitu juddoog yooyu mu gaaw efficace

ak ay xalaat yu ñuy tëral pour mun a seet naka la ñuy yokkee wàññee budget de fonctionnement bi yóbbu ko ci budget investissement nee naa leen am na tamit euh, xalaat bu ñu mën a def waxtaan bu ñu mën a def ak état bi pour que mu mën a yokk fonds de dotation yi nga xam ne moom la ñuy alloué collectivité locale parce que bu ñuy wax tamit programme damay def lii damay def laa il faut ñu xam ne moyens yi mu ngi fi donc il faut ñu war a seet yan moyen lañ mën a ut pour mën a def loolu nga xam ne moo di programme bi ma ne leen mairie doo ko jël rek toog noonu mairie boo ko jëlee da ngay xalaat da ngay sol say dàll uti ay partenaire da ngay wax tamit ak entreprise yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñu mën a def benn partenariat public privé boo xam ne dinañu mën a tax ñu mën a yokk suñu ressources yi